Salut les amis de e-Sport TV, merci encore gars de la confiance voulez, merci de vous like, merci de vous abonner, merci également de commentaires. Un plaisir gars, chaque fois de partager informations. Il Sénégalais fait pour les 14 régions du Sénégal, à également qui l'hôpital de sécurité du février, nous également qui de Nous On avance ensemble dans la magie de TV, l'actualité en moy Noah Fadiga plus de peur que de mal waxale également li nga xam moy donc ñi di wa Bayern Dominique en crise entre guillemets ki nga xam nak moy donc ki di Music mom défendre ki nga xam moy donc ki di euh, donc euh, Nagelsmann euh, mom mi adi Oliver Kahn mom nak ñom Sadio Mané ak joueur yi la daldi di baram baaraam loolu la ñuy waxtaanee. du côté également dono Lyonnais ah, ñi nga xam ñoy suñu gaynde yu yi Mama Diop Marseille yi moom moo def triplé ki nga xam également moy avant Neymar jaxat daxaja jaxate excusez moi daldi def doublé au total nak ñom Marseille ñoo door Nîmes 8 buts à 0 0 suñu gaynde lay duggal 5 buts malheureusement malheureusement également pour le seul représentant du Sénégal dans les compétitions africaines du Casa Sport tay nak GS Kabylie mo len door ñetti bal ci dara gannaaw bi nga xamee nag match aller bi Casa Sport moo leen dóoroon loolu di won également que suñu championnat local bi war nañ ko gëna a ñi nga xamné également moy donc la famille Pogba notamment qui di Paul Pogba ak yayam ñom nak dañ leen placé sous sécurité protection policière ah loolu nag waa Italie def par rapport ak li nga xamné moy menace ñu japp né mom la am bi nga xamné frère euh, Pogba bi Mathias Pogba dafa gën am lu wax gars japp dafa am donc centrage bu muy teg ci jour bi euh, ki di Ahmadou Bamba dian gis ngeen ko ah, tay tribune la demone Fini fin bi moom moo posté pour également wax kontaan bi am pour dal di dajewat ki nga xam Steve Mandanda franchement man le Bamba dian daf ma dépasser dépasser euh, clairement Désert bi donc aujourd'hui moom moo remplacé ki nga xam nak moy grand Potter du côté donc de Brighton Désert bi nek également nek un entraîneur bo xamne mom comme euh, ki nga xamne ne donc grand Potter il est réputé comme étant un entraîneur bo xamne day jouer il veut révolutionner il veut également proposer autre chose. Donc, mon là Brighton Dadi Tan pendant ce temps également Graham Potter actuellement donc euh, kii euh, Armando Brohard ngeen gis ko ni nek joueur bi mom dal fi mu ne nii euh, nee est matul dal bi petit à petit day nek titulaire parce que limu woné entraînement doyna Graham Potter ba mu am sañ-sañu né da koy def titulaire kii Neymar actuellement match bi mais Lyon Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain mo mëne won ba def vidéo bi 1 but à 0 Neymar nag également passe décisif sur le but de Lionel Messi 11 matchs 11 buts 8 passes décisives pour Lyon Neymar donc l'attaquant brésilien Espagne euh, ñi nga xam nag mooy donc derby bi commencé ne classico bi diggante Atlético Madrid Real de Madrid Real Madrid moo mën un deux buts à zéro ah ngeen gis classement bi tay le qui Simon di Teco ngeen gis pour la première fois qui donc di Antoine Griezmann était euh, titulaire moom mi nga xamné euh, ban la don tok mais également aujourd'hui la clim ah donc au niveau de Wanda Metropolitano mi ngi joggé ci ki ngeen gis ni di Valverde Valverde qui enchaîne keroog dugal te gis ngeen ko la spiritualité le calme la rage bi nga xamné ne Valverde mom lay dégager gars yi man franchement ça m'étonne et ça m'impressionne ki nga xamné également Rodrigo sur une magnifique passe magnifique passe gars yi de Tchouaméni dafa dugal bi bu rafet tamit ah dal di def euh, fetch la samba parce que tay euh, gis ngeen ñoom ñëpp dañu doon soutenir kama Vinicius Junior ba supporter bi tay ñi ngi supporteru Atlético koy ñu yor ay golo di wax né Vinicius golo la et tout loolu nag nekkul lu naqari actuellement aussi le Napoli mo meune won Milan AC 1 but à 0 mais grâce à cet homme ah, grâce à cet homme Olivier Giroud donc Olivier Giroud taxna Milan AC d'aller di won donc à la 64e minute, un but euh, partout. Donc Giroud actuellement l'homme fort de l'équipe de France et aussi euh, du Milan assez, Idriss Gane, et non gay, le lion du Sénégal, le champion d'Afrique aujourd'hui encore, il a été énorme, énorme. Première victoire de Everton aujourd'hui, Union de West Ham. Donc Idriss Gane était un des grands artisans. Plus de peur que de mal pour King Moinoa. Fadiga ah, il était sorti sur civière il a gagné Nous avons gagné, génne contact l'équipe adverse mais heureusement heureusement ah, plus de peur que de mal il était un peu sonné dafa a ah, mais il devrait être là pour le match contre la Bolivie et également l'Iran. wa excusez-moi Iran donc qui dit Noah Fadiga il sera là pour honorer inchallah sa première titularisation le fils de Khalilou Fadiga donc choc bi et en Bundesliga Union Berlin sur, pour la, à la surprise générale moo premier hein, avec 17 points Ni Bayern de Munich cinquième place avec 12 points euh, Dortmund nekk deuxième 15 Fribourg 14 Offenheim 13 euh, euh, Eintracht Francfort 11e ñi nga Leipzig 12e mais également gars di wax crise du côté de Bayern Munich ñi naan dañu wara a dàq Julian Nagelsmann Hasan Salihamidzic moom génn na ne Nagelsmann actuellement il n'est pas question ñu dàq ko gëm nañ ne mën na régler situation bi donc mom lañ fi bàyyi ki nga xam ne moy Oliver Kahn nee aujourd'hui Nagelsmann est la solution ah, mom aujourd'hui gis na ne mom moy le leader technique mom nak actuellement nee na li muy song moy joueur yi lay song ah, ñom Sadio Mané coéquipier lay song bu ne am na joueurs yoo xam actuellement dañoo yaakaar Né euh, Allemagne dal Bundesliga bi nekku lo xamné priorité la ñom dal Ligue des champions lañ def euh, priorité ba tax ñu am ñaari xar kanam loolu nag jouer joueurs euh, changer wanewaat actuellement gars je l'ai dit 87 matchs hein tok nañ ko Bayern Moust jouer ben match dougalul but kérok depuis 2002 le Bayern gëjoon am gay hein ah, donc gëjoon na euh, aussi hein donc di toog tegale quatre matchs euh, donc ko gagné la première fois depuis 2002 aujourd'hui vingt ans après loolu am donc Sadio Mané et les coéquipiers euh, donc du Bayern Munich ñom ñep hein ah, kii di Aliou Werka nee nañu yeewu xoolaa seen bu baax a baax a baax a li ci dess do ay caaxaan et que Bayern boko ko da nga wara def lo xamné da fay jéggi dayoo gars c'était les informations que je voulais vous donner donc les wax bonne gis-gis ngeen am également sur la performance encore une fois de Idrissa Gueye li kan wax ci Sadio Mané et aussi sans oublier Noah Fadiga woo like woo di abonné on avance ensemble jaa Dagen Jeff.